Euh, waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina soxna Aida dafa doon nit ku baax muy sargal koo xam ne dafa nekk suñu muy Ndeye Fatou Diaga yal na ko yàlla xaare àjjanay firdawsi soxna Aida nag tey bu wootee man asulabe damay sawar damay ñëw parce que ñun chaque jour këram la ñuy kooru kër rajo bi mooy lekk mooy joxe naan mooy dindi ci poosam di joxe ay paas te bu ko neexoon mu bañ ko ci fekk moo waral tey sama teewaay waaw. ay moo waral sa teewaay waaye ku xam na ne ci weeru koor dañ nekk te weeru koor euh, social day bëri waaye mu gis li nga xamante ne moom mooy organisé muy ndogu yi nga xamante ne macha allah def ci haute dimension ndax gis nga teranga ak bernde yi xamante ne def na ko fi dégguma li nga wax de. ku xam na ne ci weeru koor lañ nekk mais gis waawaw loolu moom soo ma ci laajee damay sawax pour pour tontu la ay traiteur la jël ñoom euh, Bamba traiteur ñoom Xaali traiteur ñoom ñëpp a ngi fi lii mu def nag ñàkku ko ci bis bii da koo yàgg a def dafa yàgg a sargal Ndeye Fatou Diaga dafa tombeek ren muy koor mais moom da koo def lu mu ci ñàkk yàlla na ko yàlla remplacer lu mën ren yàlla na mën déwén lu ko raw digganteem ak célébrité tamit nekkul lu ñuy laam nañ la waaye gis nañ la tey kenn ku nekk ci euh, koo xamante ne rek wàll wi mu nekk gis nañ ko ci tey. Euh, moom ñëpp la amul ak benn artiste Sénégal xaaj ak seen moom ñëpp la bëgg moo waral ñëpp ñoo fi ñëw man depuis sànq maa ngi fi moom kenn du ko tam xam parce dafa nekk nit ku baax nee la berne lii mu def su dul koor noonu la koy defee da doon sargal Ndeye Fatou Diaga ren nag dafa tombe koor gi ñu koy ñaanal sunu yaay ji yal na ko yàlla xaaree firdawsi yal na ko Wally këram yal na fa dee gëj ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi dafa def fi ndogu macha allah yéen gis ngeen ko fii tey dara jeexu fi dara dara dara jeexu fi tey dara dafa def fi ndogu manger bois macha allah dañuy servi bay servi ay laax te pare guñu de mis wi yeeg ceeb yi yëpp a ngi ci biir ba pare dañoo jël reen ndogu yu bëri daa di yónni ñoom Fama Faye ak ñoom waa euh, Jimo Afia ñu yóbbu reeru kër Waly Seck ndogu kër Waly léegi la dem te fii bâche bi tubaarkàlla macha allah kenn xiiful kenn marul soxna Aida Saliou loo mën ren yal na nga mën déwén lu ko man loolu rek laa ñaanal. ku ne xam na ne askanaaw bi suba la ñu dëgmal li nga xamante ne moom mooy élection ngay xale am wàll itam ci réew ku ne xam na ne élection day ànd ak fitna. wàcceel sa loxo yi. Euh, sa loxo yi. tey ci ñi nga ni politique. man dama damaa sargal jaaga damay laaj ci politique looloo ma réew mi ñëpp a jàpp waaw suba élection li may ñaanal li may ñaan man sénégalais ñu dem voté ci jàmm ñibbi ci jàmm ku ki nga àndal nga sànni ko carte ñu ci jàmm ñu ci jàmm loolu daal man lay ñaan parce fitna xajul fenn ñun ñëpp ay ci fitna waaw kay. maa ngi lay fay ah. waaw maa ngi ci jàmm. dañu gis jigéen day yàq moromu jigéen day la woon naan ànd ak moom. dégguma li ngay wax. dañu gis jigéen xam ne porte de man loolu aw ma lu ma ci wax parce que man dañoo ñëw sargal jaaga ñun moo ñu yëkkati yàlla nañu yàlla musal nag ci fitna yàlla nañ ci yàlla musal képp ci nekk yàlla nañ ci génn. ñu gisee naa la man sargal jaaga ma indi ngay insister wala yow Colombo moo la yabal ci lu tax ma sargal bee ma indi. waaw waaw. yow buñ la xamee bu la Sénégalais xamee li nga TikTok moo tax vidéo yi nga doon def bokk na ci li la lancé ci TikTok tey ba ñëpp xam la tey bu ay jigéen la yow nekk ci TikTok di wax naka sa doom di yàggal sa ci biir wala man TikTok moo tax àddina xam tey suma télé yi di gis di ma fay ay publicité may def ay téléfilm toog moo tax mais defuma ci lu ñaaw defuma ci yàlla musal képp ku ci nekk yal na ma ci yàlla génne doo am coow waaw. mais jigéen mooy yàq pour mu jigéen ñoom gis ci nekk yal na la ci yàlla génne sargal jaaga moo ñu du dëgg ku ci nekk yal na la ci yàlla génne man loolu laa am ci lu may maa ngi toog sama kër waree voyage maa jël sama avion di dugg Espagne di dugg Dubaï di dugg Turquie parce que foofu tamit dafa ay sénégalais yoo ne dañ fa ne amuñu këyit damay dem ma bëggali leen jëlaat sama avion ma ñëw Sénégal. yéen xam lu ma bëgg sargal jaaga fi indi lem leen seeni micro ngeen tàllal ba caaka finis émission terminé dem nga mel ni ku ma. maa ngi leen di fay bu baax maa waaw euh, ayda Saliou moom bu ñu ñëwee ci bësam bi mën naa ne ndax ñoo bokk Serigne Saliou te ku ne Aïda xam ko ci Serigne Saliou ku xam Zal Mbaye tamit xam ko ci Serigne Saliou ñu duppee ma sëriñ Saliou kon moom muy def euh, rendre hommage euh, yaayu Waly soxna Diaga kon rafet na bu ñu woowee yëgal ñu ko ñu daal di ciy ñëw. ndogu bi mu xam ne ne woote jox jaamu yàlla yombul tey mu togg ci ay nga xam nga nit moom boo yàggee def lu baax def lu baax tamit du nekk loo xam da lay jaaxal soxna da moom yàgg naa def yii ni mel kon yii du ko jaaxal yii du metti ci côté am daal da koo yàgg def macha allah. joxe ndogu yombul. yomb na yombul ndax loo gis du nekk xol moo koy def te defe naa soxna da moom xolam dafa rafet dafa yaatu macha allah war naa mën a def lii daal. ñu gis kontaan rek ak xol yu tooy ndax ku ne xam na ne Mama Diaga ndeysaan xajoon na fi mais yàlla moo def li kon bu ko rendre hommage mën naa nekk ndax nag moom ak Wally Seck dañoo yàgg moom ak Wally Seck yaayu Wally Seck la kon bu rendre hommage yaayu Wally war naa mën a ne. ay bool fi nga xamante ne mooy ci Wally Seck. waaw loolu rafet la ndax moom ku nekk ku xam ne soxna Aida xam koog si Wally Seck seen diggante ñoom ñaar lëndëg maat la ba doxul ci diggante bi kon bu yóbbee ay reer warul yóbbee ay ndogu foofu mën naa nekk macha allah. coow ak ni nga coow li sama yoon nekkut na. sama yoon nekkut tudd ñu sama tur moo tax sama yoon nekkut vraiment. na ne. allahumma salli wa na ma ci man mi yëguma loolu de. waaw li may wax ci ñoom ñaar moom li may wax ak ñoom wax naa ko ak ñoom ba pare du internet bi laa koy waxee ku ci nekk yëkkati naa sama téléphone woo la wax la li ma xam foofu laa yem. waaw xam nga dafay jot ngay maanu nag parfois. man lu may maandu ma lu ma maanduwul maanduwul lu ma dugg sama yon nekkul lépp lu ma dugg rek dafa nekk ne sama yëf la moo tax man ma ma dugg ci waaye lépp lu may dugg lu ne man maa moom man luma ma dugg ci yëfi jàmbur dama maandu. déggoo ma la li ma war ak ñoom du ci internet bi def naa sama droit ak sama devoir ak ñoom ba pare. dañu waaw moo tax ma ne la li may wax ak ñoom man ak ñoom la concerné vocal naa leen woo naa leen ku ci nekk li ma séq ak yow def naa ko ak yow. mais troisième personne troisième personne yi doon wax que ni mandat ngaa ko doon jëw. ah ñu bëri ci commentaire dañuy bind sa tur. di la mhm. cité ni yow la. parce mhm. que mhm. naa nekk man nag. ba tey mën naa nekk man ba tey mën naa bañ a nekk man mais à tout moment daal da ngeen fexe ba ngeen dégg sama tur wala ngeen dégg sama sama làmmiñ man ci troisième personne bi boobaa lay ne. waaw mais sëñ Bada xam nga nit ku nekk ni nga tool rek noonu ngay defee ku ci nekk ni ngay soobisee sañ Bada noonu lay soobisee noonu lay amee. mais man du ma du ci du ma ko ci condamné ndax nit ku nekk ni gay amee rek noonu ngay defee moom ni muy amee noonu lay moom moom moom loolu la moom loolu moom la concerné waaye du man vraiment. léegi xanaa ne xaata sorti. dégg ñu dégg hmm. dal man daal mbay kaay lu ma ragal a wax ni toog jooy. waaw sa neex de man bay mi. da ngeen koo dégg ndax da ngeen koo dégg laay laaj maye ndax dégg ngeen ko waaw mu jot jot daa mën a ñàkk ñaar ñuy ànd ñoo jote ñaar ñu ànd ñu jote wuñ jote mënta ñàkk non man aw ma lu may setal sama der ndax sama der takku ci ba ma ciy setal dara amuluma ci sa taal. waaw man giita ngaas nag si man la bokk nag man su giita ngaasu damay fay faa ma giita ngaas. non du question bañ a fay sax giita ngaas ci man la bokk giita ngaas ak Zal Mbaye ñoo ànd. Mm. waaw euh, élection yi moom li ma ciy wax lenn dong la. ndam li mënul weesu mu Sénégal gi kii jël kii jël réew mi du Pula du doon Gambien du doon Malien sénégalais lay doon ku ku ki nga xam ne sa sant rek na koy na ko jël daal si jàmm ak salaam bu la kontaan naa